Fulay Jaay Daxaar de lu ko mooy ma ñam njeexal ko Sud Quotidien ne quatre-vingtième commémoration massacre Caaroy ba day waaw dama li ci xel yi ba léegi ni la mi ngi lëndëm laa la wax waaye lépp dina leer yéene kaa benn fan ci weeru décembre ca 1944 waaw ay tirailleurs sénégalais day yoo xam ne leen defoon ca France koo ka indi ci duwaanuk Afrique waaw ginnaaw nag ba ñu liggéeyalee kon France ba nuppi laa la wax dañ leen a rey te takk deeru France yooye campagne ak yooyee te ginnaaw tam ba ñu liggéeyalee France ba nuppi laa la wax autorité politique ak militaire yu France waaw daal di leen boobu ñu dee moo tax gis nga màggal gi nga xam ne danañu ko màggal kon day ci dimanche suba waaw ci teewaayu njiitu réew mi la Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak ay délégation étrangère yu bëree bëri laa la wax danañu ko màggal de soldaaru France yi ci boppam ñoo fi war a jógee enquête yéene kaay ne waaye rupture boobee kay léegi Sénégal day ma ngay bind nag taarix am taarix histoire boo xam ne day dama ne waa France yooyu lañ doon def daal mooy ñu fàtte ko mënul Dakar Times ne même waa France ki boppam kon ñi dañoo bëgg mu leer parce que nag day ña ngay yëkkati nañu nee nañu kon ab enquête la bëgg ca assemblée nationale ba loolay dëgg ca jamono joo xam ne nag tamit ñi ngi bëgg kon leer ci caaroy googee ñenn ñi tamit bëgg nañ leer ci lu jëm nag ci wàllum amnistie ba gone yuñ fi rayoon Aïssata Tall Sall ci la quotidien yéeni kaay waaw nee na bilaay loxo dana dar gémmiñ loxo dana dar gémmiñ ñu ci bëree bëri dinañu am kon déception goo xam ne ci nguur gi lée maar day lu tax l'indépendant yéeni kaay ne li ko indi day mooy lu waaw amnistie ba mbir ma daal jaxasoo na Aïssata Tall Sall daa wax jaar nii maître Bamba Cissé kon jaar na ca dee dëgg box bobu li ne maître Aïssata Tall daal waaw daal di ne sambal a am fois bu leen neex soppi ne mbir mi déedéet yombeewul noonu de déedéet te nag li waa Pastef fii war a xam ah muy président de la république muy premier ministre ak ñeneen ak ñeneen mais ci loi amnistie bi lañ leen bàyyee ñu ñibbi laas ne maître Bamba Cissé day ak kii de Aïssata Tall Sall waaw ña ngay jàppante nag ci loi amnistie ba aha waaw waaw ca jamono joojee libération yéen i kaay Birima Mangara waaw bi da koo dab de mar di taali kon xanaa xamoo ah kon avocat bala convoqué nañu laa ni député Birima Mangare mi leen li tax ñu convoqué ko day coowal suuf la day aha waaw waaw coowal suuf coowal suuf moo ko indi laa la wax antenne quotidien ne plainte bi day ma nga jugee na ca Mouhamed Diallo moo ni ñoom ñaar ñoo bokk de wàllum njuut njaay ci mbirum suuf ak yooyee moo tax kon xale bi daal di ko topp laa la wax aw subateel yéene kaay ne Macky Sall moom quinzième législature bi lée du fa dem aha déedéet Macky Sall nee na moom du siège yëral tribune yéene kaay mun nañu Macky Sall ne mun nañu Macky Sall ne siège ra ba à l'Assemblée nationale na dugg na fa waaye dundinu politique bi daal mbir mi daal nii rek la Sénégal saay bu élection jàllee ñu indiwaat nag coowal chef de l'opposition moo ma jaaxal le réveil yéene kaay ne ne coowal Pastef dañoo ñàkk ay voix waaw wala déet Pape Abdourahmane Dabo ci élection yi waaw nee na Pastef ñàkkul benn voix déedéet ay gox kay la gañe waat laa la wax ay sa tatal sal ne dindi fi amnistie bi daal ils n'ont qu'à essayer rek ñun tiituñu de déedéet rafuñu ragaluñu tamit réew mi quotidien ne Macky Sall na du la doon nekkee député moo ma ca jaaxal Abdou Mbow day moo ko fay mujj nag daal di kon wutu dem naa ca football ba tribune sport ne jaraaf AS Pikine ak Guédiawaye football club waaw Coca Cola day sponsoring ba dëgg la réew mi quotidien ne Ligue 1 sixième journée ba waa jaraaf seen match bi contre Walidane waaw gagné ngir mën a continuer ba léegi nii lée di nekk premier record sport ne Jackson day ma ngay tojoon Premier League ba ca Angleterre aa waaw waaw réew mi quotidien ne Macky Sall day nee na du siège kon ca assemblée nationale kon lan la doon nekkee député moo ma ca jaaxal Abdou Mbow day moo ko fay mujj nag daal di kon dem naa ca football ba tribune sport jaraaf AS Pikine ak Guédiawaye football club waaw Coca Cola day sponsoring ba dëgg la réew mi quotidien ne Ligue 1 sixième journée ba waa jaraaf seen match bi contre Walidane waaw gagné ngir mën a continuer ba léegi nii lée di nekk premier record sport ne Jackson day ma ngay tojoon Premier ba ca Angleterre waaw l'info yéen a kaay ne jeux olympiques de la jeunesse waaw Diagne Ndiaye président CNOSS ak ministre éducation nationale day Diagne ngay signé kon partenariat la la wax loolooy dëgg de JOJ yi dafa war a neex de <laughs> waaye jeux olympiques yooyu de ak lu mu neex neex neex neex neex neex neex neex neex bu leen fàtte ne suul gaz du ko teree xeeñ dawi taxulaare ndax Sonko jomaay te jomaay mooy Sonko boo paree ma ne la alaaji tëjal